a situation bi actuellement tey ñu ngi ci turu association des chauffeurs Allo Dakar ñu ngi remercier le président de la République du Sénégal le président Macky Sall ak sunu ministre du tutelle ministre du transport monsieur Mansour Faye ak. le directeur général du transport monsieur Cheikh Omar Gueye ak le ministre de l'intérieur ak le ministre des forces armées comme niñ ko xamee ci àdduna bi yëpp wala ci Afrique gépp ci dëkk yu mag yi embouteillage bi sonal na nit ñi ak polition bi ah ci situation boobu nag ñun jeune Allo dakaar yi nga xam te ñoo innové oto Allo Dakar yi def nañ ci ay innovation ci dëkk yu mag yépp yi nga xamante ni nii tey ñu ngi ci biir senegal mën nañ ci citer ay quelques dëkk rek lu mel ni dakaar Thiès Touba Ndar Louga Mbour Bambey Xombol ainsi de suite ainsi de suite concept boobu nag yaakaar nañ ni réussir nañ ko ndax tey fépp foo dem ci senegal mën nañ ni ñi ëpp ci passagers yi ci système de transport boobu la ñuy dugg di voyage te système de transport boobu tey fexe nañ ba développer ko ba mu créer lu toll ci fukki junni emploi direct mooy ñoo xamante ni nii dinañ xëy di ci daan seen doole chaque jour di ci am seen gagne-pain ci exemple buñ mën a joxe bu ndaw rek bu ñu jëlee quatre cent véhicules yi départ Patte d'Oie di dem Mbour den contribuer à de trente millions ci autoroute à péage bi xëy na loolu dinañ ci développer kon li ñu créé ci emploi tey jeunes yooyu yëpp tey paralysé nañ leen parce que à l'heure actuelle yi ñuy wax a yéen am na trois cent véhicules yoo xamante ni nii ñu ngi leen di téye ci gendarmerie bu Mbaaw ça plus de quinze jours te amuñu ku ñu mën a waxal ndax kafa nekk bu ñu demee du ñu recevoir état du Sénégal mi ngi seetaan ci loolu te ay borom kër lañ yoo xamante nii ci liggéey bi lañ yaakaar te boobaak léegi ñu ngi téye oto yi ci kaw loolu nag ci lañ am ay revendication yoo xamante nii wax nañ ko mooy tey mbooloo mi fi dajee ñëpp ak ñi nekk suñu ginnaaw ñi ngi demande oto yi nga xamante nii jàpp nañ ko téye ko boobaak léegi ñu bàyyi ko ci nu mu gën a gaawee ba seen borom mën a nekkaat ci liggéey bi ñu ngi ñaan aussi état du Sénégal mu jàppale entrepreneur yi nga xamante ni nii tey ñoo nekk ci système bi di liggéey ñu acquérir seeni oto tey par le biais de financement soit nga dem ci banque soit say parents jëndal la ko même sax de supports de l'État comme DER am na ay financements am te ni jot nañ ci. jënd ci ay oto yoo xam ne tey ñu ngi ciy liggéey kon état du Sénégal war na noo mën a jàppale tey ba ñu war a mën a am këyit koo xamante ni dinañu wan a mën a permettre ñu mën a liggéey suñu liggéey convenablement parce que aussi nous sommes de per de famille nous faisons partie de ce pays ndax tey garage yu bari dindi nañ fi agression garage yu bari dindi nañ fi vol garage yu bari dindi nañ fi dérive yoo xam te ni yu baree bari jeunes yi doon nañ ko def tey nekk ci liggéey bii di ci góor góorgóorlu ndax ñu ngi ciy gis seen bopp di ci suturoolu ak seen i ba ci immigration clandestin bi nga xam ni lëmbe woon na jamono ji tey ku xool salle bi yëpp di nga xam ne ay jeunes rek ñoo fi nekk tey kon mënoon nañoo jël yeneen voie di def loolu ba tey bu ñu toogee ba nga xamante ni nii tey ñu ngi concentré wu ci benn liggéey boo xam te nii servir population du Sénégal la parce que dañuy com contribuer ci développement Sénégal sur le plan timing sur le plan financement sur le plan économie yooyu yëpp alors Dakar yi tey dañ ciy contribuer kon secteur la boo xamante ni tey état war na koo mën a jàppale état war na koo mën a dimbali ba tey mu taxaw mën a liggéey liggéeyam ndax fi nga xamante ni état du Sénégal mi ngi woote l'emploi des jeunes kon de bii yaakaar naa ni waru koo mën a rëcc. ndax ay jeunes yoo xam te ni góor nañ ba am seen propre emploi tey foo xam te ni état moo fa waroon a taxaw jox leen emploi boobu xëy na emploi boobu matewul ba ñoom ñu xëy tey wuti ji seen i emploi ba créer ko kon war nañ leen a mën a encadrer war nañ leen mën a légaliser ñu liggéey dans toute tranquillité kon tey suñu cri de mooy suñu oto yii nga xamante ni jàpp nañ ko te mu nekk LG Mbao ñu bàyyi ko sans condition loolu lañuy ñuy à l'État xeex bi nag dañ koy soog door ci conférence de presse bi nga xam ni woote nañ ko waaye jàpp nañ ay manifestation tey bu fekkee ni lii ñuy ñaan sottiwul ndax dañuy demander à l'État du Sénégal sàcc ñu fenn ji wuñu agressé ñu defuñu dara dañuy liggéey di daan suñu doole kon alal bi ñu am ñu téye ko alal ji ñu am ñu maanaam ci quinze mille la ñuy trente mille minimum cinq minimum laa leen wax suñu jógee ci vidange ñu jël péage aller retour Mbour sept mille francs la na ko deux fois mille quatorze su ko defee ci long mois dina ko dikkee quatre cent vingt mille francs waaw ñu dem ci essence vingt mille deux aller retour mu dikkee ko six mille francs ci weer mu dikkee ko sur le mois six cent mu dikkee ko sur le mois un million et quelques cinq cent cinquante cinq mille boole ma si pëne yi boole ma si pièces détachées yi boole ma si vidange euh, euh, assurance boole ma si visite technique ak yeneen ak yeneen loolu soo ko boole si année bi benn oto bii daw loolu contribution financière s'élève à douze millions six cent soixante mille minimum benn oto mu minimum je vous je prends sur cinq cent alors qu'on a de mille plus de mille mais soo jëlee cinq cent oto Mbour xam nga ñaata la ma wax leen tey six milliards trois cent trente millions kon loolu état gëstu loolu benn ligne la daa wax ak un transport de voiture de Mbour alors que y a Touba y a Thiès y a Kaolack Bambey y a Diourbel Saint-Louis y a Ndar y a Kébémer dañu jóg dañu xool li ñuy wax xool la ñuy waxee parce que depuis quinze jours et tous les responsables sont là derrière GIE Allô Dakar kenn toogul ñëpp a ñëw ñëpp su defee beneen bi nga xam ne quinze minimum cinq mille trente cinq mille minimum laa leen wax su ñu jógee si vidange ñu jël péage aller retour boobu sept mille francs la dina ko deux fois mille quatorze mille francs su ko defee ci long mois dina ko dikkee quatre cent vingt mille ñu dem ci essence vingt mille lay def deux retour mu dikkee ko six mille francs sur mu dikkee ko sur le mois six cent mu dikkee ko sur le mois un million et quelques cinq cent cinquante cinq mille boole ma si pëne yi boole ma si pièces détachées yi boole ma si vidange euh, euh, assurance boole ma si visite technique ak yeneen ak yeneen loolu soo ko boole si année bi benn oto bii daw loolu contribution financière s'élève à 12 660 000 minimum. benn mu minimum je vous je prends sur 500 alors qu'on a de mille plus de 1000 mais soo jëlee 500 oto mu xam nga ñaata la ma ko tey 6 milliards 330 millions. kon loolu état gëstu. loolu benn ligne la daa wax un transport de voiture de Mbour alors que y a Touba y a Thiès y a Kaolack y a Bambey y a Diourbel Saint-Louis y a Ndar y a Kébémer dañu jóg dañu xool li ñuy wax xool la ñuy waxee parce que suñu depuis quinze jours et tous les responsables sont là derrière GIE Allô Dakar kenn toogul ñëpp a ñëw waaw asalaamaaleykum mbooloom ñu nuyu bu nekk ci turam ak santam di leen balu àq di leen balu di leen masawu coono yéen ñëpp c'est ndax leer na ni képp ku fi taxaw ku fi teew ak fu teew ñu teewal lañ la fi mais mbir mi lenn la mooy li ñu metti ak li ñu dal ndax li sama nattangooy wax ñoom laay rebondiraat loolu laay waxaat ci ñoom ndax mbooloo mu toll nii mel nii jóguñu pour lenn lu dul daan doole ngir lu ñu yóbbu seen kër ak seenu njaboot nga paralyser leen ci semaine bu mel nii loolu wax dëgg yàlla metti na te nuñ war na ñoo gëstu war na ñoo boole ci réew mi bañ ci boolee suñu bopp yàgg na mais dañu see boolewul te war mën a bopp ndax suñu bopp ku ci nekk yaa ngi ciy suturloo ku ci nekk yaa ngi ciy daan doole ku ci nekk yaa ngi ciy dimbali ndey ak baay kon ñun amuñ lu dul loolu au moment que nag état du Sénégal day wut ay emploi ñu toog créer milieu bu mel nii jaaykatu caaf bi sax ci la bokk jaaykatu café bi ci la bokk kon secteur bi ko ko bëgg a naxa ñun duñ ko nangu te duñ ci d'accord te duñ ci ànd ak yow te dañ ci combattre li ñu man ndax bu ñu toggee fii ci liy jàppale ci réew mi liy contribuer ci réew mi leer na leen ni tey jii suñu oto yi bu ñu gaari autoroute à péage bi directeur moo jëkk a génn wax ak yéen ndax ñun lañ koy joxe kenn du ko fa joxe loolu moom leer na ñëpp suñ jógee ci loolu station yi taxaw di sol gasoil ku ci sol vingt litres gasoil balaa koon nga lakk ko oto beneen bu ko sol di nga toog cinq jours doo ko lakk ñun oto bu ñu sol vingt litres gasoil balaa koon ñu lakk ko kon li ñuy consommé di gasoil bu ñu station yi tëj borom station bu ci nekk dañu seede suñ jógee ci loolu secteur bi ñu nekk nekkuñu chauffeur bi moo ciy dund kese nekkuñu coxeur bi moo ciy dund jaaykatu beñe bi jaaykatu caaf bi mu ngi fi fii kilifa gu fi nekk ci réew mi boo dugg suñu oto si njaboot mu ngi cee dugg tey jii ku dem hôpital tey jii amoo ambulance boo jot ñu nga jël si soo dem feneen ñoo lay yóbbu gaa ñu gën a gaawe kon ñun woote wuñu pour ñu dégluñu dégguñu dañoo bëgg ñu dégluñu dégg ak déglu nag bokkul suñu dégloo nañu dégg ñu xam ni ñu bëgg ndax fii ku ci nekk amoon nga possibilité dem jël gaal mbaa nga sàcc mbaa nga yor sa jaay taxaw ci mbedd mii ca kenn du ko faj ndax da ngay faj sa soxla kenn day faj soxlaam mais dañoo dëgg loolu lépp ngir bëgg a sutur la su suñuy waajur dara suñu njaboot moo tax ñu gedd lépp ànd ci lii bu fekkee nag état li nga xamante ni moom lay wax moom lay joué di ko doxal ci ñëpp mu wóor ko ni nii emploi des jeunes la taxaw fépp plus de dix mille jeunes taxaw wutal seen bopp li ñu bëgg ba war koo am kon man gisuma ni secteur bi war nañ koo mën a néewal doole te dañ ci taxaw suñu fos dañ yuuxu suñu kër cri du ba lépp luñ ci góobe tey gar ko te luñ ci bëgg ñu am ko loolu rek moo tax ñu bàyyi ndax tey boo demee LG mbaa la fa nekk naqari na ñaaw na met na ñu te mun ñu koo faj ndax amuñu fu ñu ko jooy ku xamante ni tey soo xëyee sa kër war nga faa bàyyi dépense sa doom soo wàccee war naa gàtt nga jox ko sëriñ ca soo fay jóge war ngaa jox sa jabar dépense ku mënti doon boo ko defee su fekkee capitaine moo ko def wala ak ku ko mënti def war ngaa bàyyi xel ci ni soo demee sa kër yaa ngi fay joxe dépense di jox say doom ñuy dund te yaa ngi lor ñeen ñu ko deful barke sëriñ Fallou Mbacke sofeer si nga xamante ni sofeer si nga xamante ni ñun LG Mbao gerte caaf la ñuy dundee ak beñe fukki fan ak juróom ñu fa gerte la ñuy dundee waa léegi ñu dañoo bokkul ci réew wala ay burkinabé lañ bokk buñ bokkee feneen ñu dem foofu moo ne def fii ku fi fal ñoo la fal ku fi faleekut ñoo lay fal ñoo ko moom te ñëpp dañ ko yëg lépp lu mu laaj ko def maa ngi jégalu baa ci kàddu yi bi suñu kàddu ñun eggul fenn suñu kàddu su demee fenn ginnaaw yàlla ñii la kon dañ leen sant di leen gërëm ñuy ñaan nag lépp loo xam ne wax nañ ko fii yàlla dugg ci président daal tey ci guddi gi tey ji incha allah maa ngi jégalu bu baax ci wax